ah léegi Babacar euh, pour cette élection euh, à la surprise quasi générale on a vu que Pastef a décidé d'y aller seul Ousmane mhm. Sonko l'a annoncé au leader mais ma question première mooy vous le parti est-ce que vous étiez au courant avant même cette annonce maanaam li ma est-ce que vous en avez discuté euh, ba trouver ce que Ousmane Sonko a dit ce jour au, au leader. Euh, d'abord je corrige. Mhm. nous nous allons pas à l'élection seul. c'est la coalition Diomaye président. Mhm. l'ensemble des partis parti politique et mouvement ñoom ñoo ànd war a dem élection législative sous la bannière de PASTEF. d'accord c'est ça la bonne. am na nuance en fait. Ouais, mais de PASTEF. parce que PASTEF moom mooy parti locomotive. bi mhm. fekk bi nga xam ne moom moo gën a am doole mën nañu wax ci coalition bi. mais vu aussi euh, vu les conditions d'organisation de l'élection élection anticipée. Mm -hmm. il y a pratiquement pas de temps de préparation deux mois tuuti na pour. Mhm. pour préparer élection euh, présidentielle boo fi nekkee di structurer waat une coalition pour aller aux législatives tu vas du temps et tu pas assez. Mm-hmm. donc loolu moo tax ñu nangoo dem ak euh, euh, sous cette sous sous la bannière du PASTEF te yeneen parti yi nekk ci. coalition mais yëgoon ngeen ko avant le PASTEF. y avait y avait pour wax la dëgg la majorité des militants ñu ngi ko doon xalaat. am na ñu ko doon am na ñu ko doon wax tamit. Mm-hmm. te tamit au mois de mai. Euh, amoon nañ benn réunion bureau politique man je suis membre du bureau politique de PASTEF. Mhm. boo xam ne on avait demandé aux gens de dire leur leur avis comme ni ñu koy defee tout le temps au niveau du du il arrive que des responsables du parti soient minimisés parce que ku nekk day joxe euh, xalaatam donc commencé woon nañ di ci waxtaan. mais jëlaguñ ci woon une décision le jour même de l' élection mhm. euh, de cette réunion du bureau politique li ci desoon dañ ko joxoon le président Ousmane Sonko bés bu décision jotee ñu waxtaan mais mais bëggoon naa xam comment est-ce que vous en êtes arrivé parce que c'est une première euh, depuis l'an parce que depuis 2000 on a constaté que euh, les partis euh, qui qui la présidentielle allaient en coalition aux élections euh, euh, forme bi ak fond bi dafa wuti ak seen démarche forme bi daan nañ jël benn tour boo xam ne dina indi consensus Ablaye Wade peut-être coalition soppi la doon demee même si soppi xëy na ça lui propre mais euh, ça ça ça en compte peut-être d'autres d'autres considérations ci fond bi aussi c'était ouvert aux autres coalitions ils avaient leur mot à dire Benno Bokk Yaakaar aussi Macky c'est ce qu'il a toujours fait mais vous li ma bëgg a wax mooy on est à l'ère des Euh, yëg seen bopp xëy na euh, pour aller euh, seul à à ces élections teg de côté ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak yéen ils n'ont pas leur mot à et ñu bëri di annoncé nañ ko j'en connais au moins deux à trois. en fait nous avons un un jeune partie bu ñu créé en 2014. Mm-hmm. bu am fukki at ren. et que c'est vrai que nous sommes à l'ère des grands ensembles comme ni nga ko waxee pratiquement élection yi passé yëpp ay coalition ñoom ñooy ànd di ko gagné mhm. ba ci élection législative yi nga xam ne on était avec avec Yewwi Askan Wi mhm. amoon aussi ensemble benn programme kii benn programme législatif commun boo xam ne ci lañ doon liggéey mhm. donc dañ jàpp ne toll nañ foo xam ne euh, Pastef war na mën a natt kàttanam pour dem élection Euh, législative am ay député yoo xam ne ce sera sous la bannière du parti mais accompagné des alliés ça aussi il faut qu'on y revienne mhm. mooy c'est pas que seuls des députés de PASTEF qui seront dans cette liste il y aura des députés d'autres partis qui se investissent seen liste il des députés d'autres partis de la coalition mais nu ngeen ko defee et il faut même s'attendre à ce qu'il y des personnes qui seront investies et qui ne faisaient pas partie de la de la coalition ah, oui. Ah, il faut s'attendre à ce que nous ratisser large, aller prendre les meilleurs profils mhm. que l'on passe être, nous être utiles pour cette législature-là parce que dafa am lu bëri lu ñu a liggéey assemblée. Ah, c'est important parce que aussi cette précision et parce que dans l'entendement populaire ñu bëri jàppoon ne euh, c'est Ousmane Sonko qui va investir que ses militants et responsables parce que wóoluwul les autres membres xam ne parce que c'est vrai que am na lu ñu dund. Mhm. am na lu ñu dundu dans les coalitions. mais c'est pas que ne on a décidé d'aller seul par manque de confiance par rapport au par rapport aux autres partis ou bien aux autres leaders mais il faut comprendre que ne dañu nekk ci cadre élection euh, élection anticipée. Mhm. les délais sont courts et par pragmatisme au lieu que ngay installer une coalition ak waxtaan bi muy indi au départ yépp. balaa ngeen di juboo ci ci seen programme législatif balaa ngeen di juboo ci confection des listes vous allez perdre du temps. Nous n'avons que 65 jours pour préparer cette élection et nous avons jugé nécessaire que on mm. les communes du Sénégal, un puissant appareil euh, mm-hmm. de la diaspora. C'est vrai. Autant d'aller euh, en élection sous sa Et, et cette force-là, elle est reconnue par tous les partis et mouvements qui sont au niveau de la coalition Diomaye Président. Mm-hmm. Donc, rappelez aussi que Diomaye Président, c'était, c'est une coalition électorale qui était configurée pour aller à l'élection présidentielle booy dem élection législative il faut revoir beaucoup de choses dans l'organisation la structuration et tout ça et ça pouvait te faire perdre du temps